mbokk yi salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu axlu làmb di nuyu sénégalais yi nekk fii ak bitim réew jaspora bi bàyyi nañ leen xel bu baax a baax yéen ñëpp euh, bu ñu limee rek dañuy juum waaye am na ñoo xam nii euh, bu ñu leen nuyoo rek ñoom xam nañu maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñu ngi koo xam ne nii dugan ci Sénégal Sénégal këram la euh, Sénégal ñëpp xam nañ ko ci wàllu xam-xam ak tegtal Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu li nga xam ni moom la ñu bokk ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, sang bi alaaj Pa Maguette euh, ñu ngi lay delloo ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di ko jox mboole waa euh, télé bi ñoom waa Sénégal ñun ñëpp ak ñi leen di seetaan di la nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sang bi. waaleykum asalaam wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu bokk yiw bi yëpp. alors sëñ bi ñu ngi jëm ci benn combat boo xam ni combat bu fi amoon la. Mm-hmm. Bombardier bu mbuur Balla Gaye bu Géejawaay. Mm-hmm. Bombardier bombardier daanoon ko mu ne woon dama tawatoon waaye bi yoon wér naa péng mbër mi moo dikk euh, ñu war a bëree le muy combat boo xam ni pronostiqué metti na ci jafe na ci lool lool ndaxte ñoom ñaar ku nekk pare nga ci combat booba alors lan nga may wax ne ci làmb jooju dana nekk lu yomb wala boog dana nekk luy jafe ci benn mbër bi waa xam nga alaaji Pa waxtaan bi ci gën a neex mooy bañ a waxtaanee bakkan bakkan nag boo déggee ma wax la ko mooy waxtaan pour lu neex nit ñi wala waxtaan ngir succès waxtaan wala ngir bës waaye gis nga diggante Balla Gaye ak Bombardier yàlla mi nga xam ne ku xam moo lay xamal damay faral di wax ni nit ki bu la wóoloo yaakaar la ci wàllu ñaan yàlla bul ko nax jamono ji ñu paase defe naa ne euh, bis ba ma ko waxoon mu ngi bëgg a del si muy jeudi bi paase laa leen wax ne combat Balla Gaye Bombardier kuñ ne victoire baa ci ñaari mbëri ci sa loxo jamono jii dañ lay nax waaye boobaak léegi nag def na parce que defaat na une semaine ak coppeekoo ngi am nag waaye coppeeku gi du lool ci ñaari mbër yi ku ne ngi ci forme waaye ci kaw mystique man laay wax ci kaw mistik bi bu dee ci côté Bombardier leerul dafa lëndëm ci côté mystique mm-hmm. bu dee ci côté Balla Gaye mm-hmm. dafa lëndëm ci mystique leeragul mm-hmm. waaye mbaa xam nga ne pas màgget làmb du heure boobu. léegi naa ne la. sëriñum ñaankat dëgg ci làmb buñ ne làmb mbër mi war nañ koo takkal ngemb duggi na estaat fii la sëriñ si commencé liggéeyee. yeneen yi ci des nag mën nañu di wàññi mbër mi ci ay xadara wàññi mbër mi ci ay tegtal seet fuñ koy wàññi ba bu doon ne cinquante la trente yi moom da ko jël balaa bis ba bu bis baa nag diis yi nga xam ne mbër mi desee na ko ci wàllu xadaram ak wàllu wàññi ko ba nga xam ne bu nekkoon bu nekkoon kilo day mujj nekk libre ba adversaire am bu ci waroon a def maanaam bu waroon a bëree moom ci dix minutes ci deux minutes lay bëreek moom loola nag la koy may xam nga lan la mbind mi mooy aar mbër mi ba xam ne lu ñu war a def du ko jàpp fas yi mooy aar mbër mi ba lu ñu war a def mbër mi du ko jàpp mooy waral nga gis ñu indi poftan teg juróom-ñaar mu joggi ngir lan tojtal nga gis ñu indi xarang-xarang ngeen xaw ma nu ngeen ko bu dee ci sunu làng saalum xaram-xarang lañ koy wax moom muy kóoni moom la takkante nga gis ñu koy solal muy wàcc ngir lan bëgg bu dara lu tooke des ca yaram ba waaye damay faral di wax ni gis nga komba ki la gën a mën a fonk tegtal dàq laa bëri victoire ku la gën a ñemee sarax gën laa toog ci victoire waaye ki la gën a ki la gën a mën a topp nag tegtali mbër ya ba ci dernier moment bi danga dee dégg léegi ñu ne victoire bi dañ ko dañ ko tourné dañ ko dëpp hmm. dëpp ba duhul looy jël di nangam ci sarax ngay dëppee combat ba sarax yooyu nag fi mu toll hmm. ci wàllu la toll diggante Balla gay hmm. ak Bombardier la ku mu gañee pour lim lay gañee loolu secret jàmbur la sax duñ ca yegg waaye làmb ji nekk na làmb joo xam ne actuellement wax naa ne Balla bu bëggee mbiram gën a leer saraxu mala biñ ko diggal na ko def te bi mu ko defee nag bu defee saraxu mala booba mbir mi bu fekkoon ne poids bi day nekk maanaam bu du waroon a jafe ci moom dootul jafe moo tax may la sarax li muy tënki kii dina def sarax ngir lëndëmal say mbir kii def sarax ngir leeral yoonam. dafa mel ni da nga bëgg a wax ne Balla fi mu nekk nii nii nii respecté na combat bi ci wàllu mystique. non Bombardier benn waaye daf ma woo. Hmm. na ma Bombardier amul mystique ma ne ko yow ku ñàkk xam-xam nga gis nga lool boo koy wax nit ku war a dajeek Bombardier lu mu fa ñàkk yow yaa ko xeeñ mbër mi nga xam ne mystique du ñëw stade boo ko bëggee gis bu ñu la ko laajee neel Bombardier la ki nga xam ne te toujours wax naa leen ne lay daan mbër du dem stade nafa fa sans bouteille wàcc nga gis ci ba fees dell nga foog ne lay daan mbër maa ngi fa nekkut fa waaye combat bii li ma leen ci wax di leen ko waxaat pour mu leer xam nga ban suur la la ci nit mën a wax ni mbir mi nii la demee mooy suur bu ne Balla Gaye ñëw na bombar Bombardier ñëw na. suur boobu ngay mën a wax ne. komba bi nag buñ ne arbitre ne prip ci diir biñ dugg ci stade bi fii la sëriñ si commencé liggéey lii ñuy fas di teg lii ñuy lii ñuy teg ci taxal bi pour wàññi sa wàññi sa wàññi sa yaram. xeex nekk mais dañu dégg. combat bi bu njëkk bi bi ñu annulé bombardier moo jekk woon. Mm-hmm. nee nañ deuxième bi fi mu nekk nii nag Balla ma nga ca. waa xam nga man duma sëriñ buy waxee bakkan créer ay wax ngir bës ni ñu déglu la dafa am. Mm-hmm. doole sëriñ Babacar Si bi ma yaakaar. Mm-hmm. ku laan na ki a jekko këlee jekko ci lu neex bakkanam rek la toog di ko wax waaye làmb ji danoo taxaw ci digg mystique ñoom ñaar ñëpp ku ne say bokk yëpp nañ loo xam ne foog nga ne tey victoire baa ngi ci sa loxo waaye dernier moment bi ci taxawin wi ma gis baal la xam nga bële dama wax daa une semaine mm. ne bu génnee sarax bi yàlla leeral yoon wa mm. Mm. maanaam yoonu mu ngi leer waaye bul ko bul sukkandiku ca loolu ba de téye na ko. Mm-hmm. yaa ngi may dégg mm-hmm. wax day leer. maa ngi dégg bu baax a baax dégg wax yi dégg dégg la. comprendre nga. Mm-hmm. téyin boobu nag. ba ca bis ba. ngay xool mbir mi làmb buñ la ko joxee bu ñu la joxee làmb. waxtu par waxtu nga war di xool combat bi. waxtu par waxtu. actuellement nag jeudi bi passé yëf yi dafa lëndëm woon kërees ba am sarax boo xam ne du man ci man la bayee ko waaye gis naa ne kilifa moo ko digal la ne Balla na ko def sarax ba nag saraxu mala la ma ne bu ko defee yoon wa day leer naññi mayit ma tegal leen ci ne mala ba bu doon ne mala la bu buñ mën a tudd en direct ma tudd ko waaye tudd saraxub jàmbur it lu ko dal ci mbir ma yaa ko teg déedéet du ma ko tudd ndax làmb xam nga làmb tegtal la hmm. tegtalub jàmbur nag hmm. boo ko joxee hmm. lu dal mbër ma na la waa këram ñëw seet si dóor la kon loola mbiri boppam la waaye ak soppeeku gu ma sëkk mu ngi am ci mbir mi ak soppeeku ci côté Balla mu ngi am ndax li nga mën a gis mbër dana lëndëmal boppam nga dem toog di seet cent quatre dimanche doo gis mbër mi dara moo tax may leen mbër mi ku leen ne fi mu toll jamono ji leer na ci ñaari mbër yi day waxee bakkanam waaye fi mu toll actuellement mbër mi mbër yi combat bi defal lëndëm ci ba léegi nii leerul waaye Balla ci cadre sarax yi ma gis ñu tegal ko ko moom na topp saraxam yooyu def ko bu ko defee mbir mi dana mel ci moom ni bëccëg ci moom kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Cissé mu Serigne Babacar ñu xaar ba bés ba rek incha allah rabbi mbokk yi yéen ñëpp ñu ngi leen jaajëfal di jox dig daje ba beneen yoon te wax ji dafa laaj dégg-dégg dañ ko càmbar bu baax ndax wax na lu leer wax na lu tegu tamit jaa ngeen jëf ba beneen yoon